bàngoo laa nekk Bango écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom foofu daañu ba xeex ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kayreet ko man pour muy leer. barki Serigne Touba booy kayreet ko xeexloo ak man. Ali Mbaye mën na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Ali Mbaye la ne na ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha allah. <laughs> waaye xaali mbay la maa dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si moo la daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. ah ma daan de. <laughs> jërë ngeen jëf mbokk internet di jàkkaarloo ak ñun ci luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare le 6 août. Ibra Diouf borom Mbewaan production moo ñëw arène national ci combat bu war dox ci diggante caatu ngew caatu euh, armée bu ngéwal ak ki nga xamante ne moom mooy bébé Ama seetaan ngeen bébé Ama li nga xamante ni wax na ko ci combat bi engagement yi nga xamante ni jël na ko digganteem ak adversaire am adversaire am mooy nii nag di armée bu ngéwal fekk ko fii ah dëkk bi ñaajo Armé maa ngi lay bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyu mbokk internet waa Lamine lay fay ginnaaw bi sant yàlla jiitu sant suñ ñaari waajur xam nga ñooy nuyu waa jam ñaayu bu baax ak waa Déni Biram Ndaw waa di nuyu tamit suñ grand bi ñu fekk si fii muy suñ grand zator quoi waaw ak seetaako bi ñu nekk nii quoi restaurant bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp kuy bëgg Armé bu Ngéwél hmm. macha allah Armé loolu am na solo balaa ñuy ñëw ci adversaire bi nga fàttali ñu ñaata combat nga jot a bëre ñaata victoire nga ci am ak ñaata défaite. waaw Armé def na neuf combats euh, am six victoire am trois défaites quoi. waaw noonu la demee. kon yaa sa adversaire bu défaite am na cinq défaites. cinq wala la am <laughs> daan na bu défaite yi quoi. Uh-huh. Mhm. mais euh, nombre de combats ko tolloo. waaw ñoo toll nombre de combats mais xam naa ci victoire lañ kiiwee quoi. yaa noonu la demee. Uh-huh. naka naka nga waajalee combat bi ndax da nga jóge ci combat. am ci defet mu nekkoon sa diggante ak ñaabu ndaw nga jëmaat ci combat war a bëreeg sa morom muy xale comme yow nag ko waaj waaw ji nag waajañ ko bu baax a baax parce que boo xoolee dañoo toogoon benn quatre ans quatre ans yëpp yàlla duñ suturaal ñu si ay ndam waaw ñu ñëw xam nga keroog arène nationale suñ contre ñaabu ndaw ñu ñàkk si quoi waaw moo tax bi nii sama waa dëkk sax ñoo ma gën a bëgg muy waa jam ñaa ak waa Déni Biram Ndaw waaw waaj nañ ko si côté entraînement ak si côté physique bàyyi ñu benn détail waaw te incha bu ñu ñëwaatee arène nationale amateur yi dinañ xam ni armée ñëw na quoi. yaa mm-hmm. eh, la demee. armée ñëw jël bébé xam naa ko parce que mos nañoo bokk journée Lagros Moussa bi. Mm-hmm. waaw ma bëri fa ak Ibrahima mécanicien moom moo bëri spécial moom Albarka Kayre quoi. Ah. waaw ñu ma doon proposé adversaire yu gënoon nag. Mm-hmm. Mm, parce que ma jox ay jokkeel ay kéwal bu bawol ak yëpp ay Abu Ndiasse. Abu Ndiasse waaw Abu Ndiasse suñ combat mu taxaw mais après dafa amoon addicteur. sama combat bébé avant bi mu taxawee après selo wéere quoi moom ñu jox ko Giro Seras mm-hmm. waaw après ma xam ne su ma toogee ba déwén gars yi bu ñu daanee après duñ la bëgg moo tax ma ne xaaral ma jël combat bi effacé bébé ama jàkkaarloo samay adversaire mm-hmm. parce que fii du sama place quoi. Mm-hmm. nga jël bébé ama pour damay rectifié wu dama koy jàpp xam nga man ak moom combat bi incha allah du yàgg jox naa ko cër bu baax a baax parce que adversaire kenn du ko xeeb waaw mais buñ simee ko ba dongale. waaw dina xam ne an ma adversaire de. Mm-hmm. waaw te xale bu soxla lay bëreel. même mm-hmm. nee na li ñu lay gëmloo ak li nga yaakaar amul de ñëpp dañu jël favori bi jox la ko foog ni yow yaa ko mën te neen loolu ngor jom la ko yokk bu arbitre génnee sa diggante ak moom di nga gis beneen bébé. waaw parce que amateurs dañoo seeraan samay combat seeraan ay combat am waaw xam nañu man ak moom duñ benn si côté bëree duñ benn si côté doole côté xeex lépp waaw te buñ arbitre sifflé bu génn suñu diggante waaw dina ma wax la la ma yabee ba jël sama avance quoi. Hmm. waaw parce que moom ndaama di jël njool mi hmm. waaw lu mu xool ci man ba jël ma dina ma ko wax arbitre sifflé incha allah. da nga jàpp ne daal jël la jël ñeme bi la jël ba ñeme bi mu la ñëwee ba lekk sa avance yebeel. waaw loolu loolu ma yab parce que bu xoolee suñu taay mu dem di jël avance armée bu ngeewul daf ma yab quoi mais bu arbitre sifflé dina ma wax la la ma yabee. Hmm. arbitre bi waaye sifflé naan nga li nga ma yabee laa bëgg nga war ma ko fii waaw te buñ sifflé dina xam ne am na adversaire de. waaw xale bu pare lay bëreel la nee na xam nga waa ginnaaw bu baax a baax ndax dugg nga fa am fa deux défaites. waaw li mu wax noonu dëgg la ginnaaw raay am naa fa deux défaites mais ren ji maa nga koy wax keroog signature bi ni ko képp kuy takk ngemb ginnaaw raay di bëre mbapat ren jii daan naa la ci mbapat yi waaw mais yooyu yëpp xam nga ñu ñëpp ay champion lañ waa parce que man daan ñooñ ñooñ jomm ma ci làmb waaw parce que bu dee doole ëpp ñu ma ko te du bëri tamit dàqu ñu ma ko te maa ngi gën a féete xale waaw noonu la demee hmm. te bu laajee mbër yu mag yi bëre mbapat ginnaaw ginnaaw raay di génn ci àll bi di bari mbapat di naru bu leen laajee armée bu Ngéwél fu mu toll jamono jii ah dinañ ko wax bu baax a baax a baax. Mhm. instant damaa pare de Lamine damaa pare bu baax a baax yàlla mu ma yàlla muccal ci cat ak lamañ ak balaa ba làmb ja rek. waaw pare na de tax nee na combat bi daf ci bëgg a wane boppam bu baax a baax a baax mu dee côté doole lijjanti wala côté xeex lijjanti wala bëre bi mu waxaale wul bu bëggoon wane boppam damay damay jaaxaan dafa waroon jaar ci beneen yoon bu gën a nooy. ah wane sa bopp ko da bopp ci lu dëgër. mais ci li ki mu jël dafa soxla xale bu soxla la jël man dëkk yi nekk sama ginnaaw moo bëri waa Déni Biram Ndaw dañu ma samp waaw dañoo rafle woon champion ñu samp arme bu ngéwal arme bu ngéwal di leen façon ndam bu nekk waa jam ñaay tamit waxi nopp waaw dañ ma samp yaakaar ma ma jaral leen seen bakken nii nii rek boo demee sama koñ boo yaa ngi préparé combat bi dañoo yaakaar ni combat bi tay la chaque jour ñooy vee di waaj combat bu baax parce que maay seen Balla Gaye maay seen Modou waaw parce que maa ngi waaj combat bu baax a baax bu ñëwee arène nationale. nañ gis mbooloo bu garaaw bu ñu musul gis armée bu ngeewal waaw parce que combat bi passé macha allah yóbbu nañ vingt car. waa mais bii am nañ trente car. waaw gars yi nañ préparé bu baax a baax parce que suñ grand Zador mi tamit jàpp nañ ci combat bi bu baax avant préparation bi jàpp nañ ci waaw ba nii car yeeg yëpp. xam nga combat bi am na ci bëgg a am bëgg a wane parce que dama nekk mbër moo xam ne amateur yi. combat ba le passé man ak ñaabu ndaw bi. Ah. liñ doon xaar ci man gisuñu ko. waaw ah. ah, combat feebar lañ ko jëlee xam nga ñàkk pexe après dem bëree ko liñ ci fekk fekkuñu si ma ciy jégalu samay supérieur bu baax parce que tee nañu ba sonn di nuyuwaale sama ménageur Mame Ñaaw Ciss Abdou Lahat ñëw nañu hôpital seet si ma jën ma téye ba sonn mais mooy loolu waaw mais li ma fa perroon laa leen bëgg fay fii nii ba wis leen. da nga da nga bi ngay bëri ak ñaabu ndaw mu desee une dama dem hôpital entraîné fa 4 jours. waaw ah, gars yi ñoo nañ fii hôpital seet. nga bëre da nga gëmoon waaw man dama gëm nii su may doxee benn tànk sax ñaaw ndaw mënu maa yëngal waaw ah, parce que dama dama contact contact ay champion yoo xam ni ñoom ñaaw ndaw duñ benn xam nga bëgg ma tuggul seen tur ah, ma xam capacité yi ma am bu baax a baax a baax waaw moo tax làmb jooju après daf ma bett bu baax. Hmm. waaw mais am na lu ñu jàngal ci làmb bu baax a baax. a dara ci côté ah waaw bii moom macha allah. pare dara dalu la dara dalu ma yàlla ñu yàlla musal ci cat ak laa ma balaa ba làmb ja incha allah. pare nañ voilà. victoire bi nee na Ama Baldé moo ah, man man pare naa de. Ama na waaj ah parce que Ama tamit moom sama waay la quoi nit ku baax la ah, bi nga indi ko rek ma daan ko jël bu gaaw nga yóbbuwaat ko mu njibbi quoi. Mhm. Hmm. waaw waaw pare naa de. bu bi kay du sa ah, mais Ama xam na xam na ni booyam bi am na champion bu baax a baax waaw parce que man ak moom xamante nañ sama waay la quoi waaw mais booy na waaj de bépp Ama billaay am na combat. parce que damaa soxla mbëru dëkk la Lamine su ma jógee mbooloo mooy topp sama ginnaaw boo xoolee fii ak Dakar am na distance mais ku fa indi benn mbooloo bi ba amateur ràññali ci mbooloo nga xam ne kii waa dëkkam gëm nañ ko waaw sama waa dëkk dañu ma yaakaar gëm ma bu baax waaw moo tax entraînement du ma ko caaxaane wàccaayu combat du ma ko caaxaane mhm. daan combat bi ak ñàkk ko lan lay def daan wala ñu daan la lan lay def waa ñu daan ma moom xalaatuma ko ci combat que sama bi laaj teg boo mu naree daan di nga jël sama bakkan waaw mën na ma yàqal lu bari parce que yenn booy yi may proposé may bañ bu boobaa yow dañ may yeb booy ku jóg danaa jox mi armam géwal waaw mais suñ su ma daanee combat bi am na fu bëri fu mu mën a yóbbu waaw si samay morom ñi nga xam ni ñoom laa war bëral ci làmb dina ma mën a yóbbu foofu noonu waaw parce que bu dee xam nga côté mbooloo bi mooy fi waa côté ambiance bi tamit mooy fi parce que ñun ay doomu géwal lañ la mel waaw bu ñëwee arène nationale moom dañ koy neexal bu mu neex moo tax suñu journée du géey quoi. Mm. Euh, ak écurie bi nga nekk di nga am ay sparring partenaire ay adversaires yoo xamante ni. danañ am ñuy tolloo ak yow doole wala ñoo xamante ne ëpp nañ la doole. waaw parce boo xoolee ko côté jëm ñaayo fii amu ñoo suñu garant yi ay dab daan booy jum ak gars yi ñuy jàppale ñoom suñu ko caat xam nga commencé tamit dañ fay dem bari ñi muy jàppale ji contact gi bu dee écurie bi nga xam ne fa laa amee licence Tony Junior mooy fa. Mm, ñoo bokk écurie te sama garant la Tony moo ma ci làmb waaw sama mag la moo ma jël sama quarante utal ma licence yóbbu ma ci igri bi waaw ku moom ama fayam quoi di ko ñaanal combat dimanche bii sama waay la bu baax te combat bi jàpp na si bu baax a baax a baax. comme Tony nga bokkul écurie kay am nga euh, sparring partenaire. Tony waaw ñoo bokk benn écurie moom. baax a baax a baax. ñooy gisante chaque jour waa Jandeer. parce foofu noonu euh, moom day nekk Malika di entraîner ma nekk fii di entraîner mais chaque euh, mercredi jeudi dañuy dem écurie ba contact quoi. waaw noonu la mais yeneen jours yi moom dañ koy nekk fii nii. ok day nekk ci ruqam quoi yeneen. day nekk ci ruqam di entraîner. waaw mais jeudi vendredi moom mbër bu bokk ci équipe da ñëw foofu noonu entraîner. Mhm. say objectif ci làmb daal. waaw roi des arènes parce que loolu laa diggante ak samay supporters parce que foofu lañ may xaar tamit mhm. dañuy génn fu nekk di werante ndax armée billaay di santaat bawol bawol yi nag bu baax billaay man dañ ma bëgg rek te xaw ma lan la quoi maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax. waaw su ma may combat fu nekk la nit di jógee di ñëw. lan may loolu waaw loolu noonu dama dama leen wan yar ak fulla ak fayda. lan moo la koy waa roi des arènes moom xam nga damay seetaan moo daan de sans frontière muy wax benn wax te mbër yi duñ ko bàyyi xel. mu ni mbër boo bëggee doon champion da nga moytu noos waaw noonu la demee da ngay moytu noos xam nga fonk entraînement yi bu baax a baax a baax. waa ñi nga war a jox cër yëpp nga jox leen ko bañ di woor tamit mm-hmm. waaw boo ko defee rek tegu ci raay bi suñu borom da lay dimbali quoi. ok mm-hmm. baatu noos nan nga ko déggee lan lan bi parce que dafay wax mais ñu bari baa ñu xel mooy nga am ñaari combat ñetti combat daan xam nga xale jigéen yi topp la am nga nekk di def lu la neex bu boobaa sa rawaan yeeg sa biddéew yëpp dañuy daw. Mm-hmm. après da ñëw di bëri si doo sa comprendre nu mu demee. xale jigéen booy xam nga rek du si ñàkk dañ lay topp mais tamit da ngay xam li nga bëgg quoi. wallaay topp ma leen benn instant dañ dañ ñaama dafa ragal ragal chaque jour dañ ñaama dafa ragal jigéen. kenn. topp ma kenn su ma jógee entraînement hmm. maay sama nekk tëdd. sama yaay du nangu sax keneen kenn dugg sama nekk jigéen. da nga def mën nga ko def def sa ma ne toppoo kenn. non du génn wax dëgg yàlla topp ma kenn. amoo coro. waaye Lamine instant yii nii xoolal. amoo coro. ki instant kenn ñu ni kii gelu armé la. laa wax mu ngi lay seetaan am nga wala amoo. mu ngi lay seetaan aw ma aw ma kenn aw ma dara. noboo noboo kenn. non instant yii moom nobu ma kenn. nañ ma jàppale rek ba ci. ku nekkal da koy nax. waaw ku ma nekkal moom dama koy nax te nekkuma kenn pour l'instant nii Lamine. nekkuma kenn. ok kontaan naa ci yow lan nga wax waa Jom ñaajo ah ak waa waa Jandeer comme ni nga ko waxee tund Jandeer bi lan nga leen wax pour le 6 incha allah ñu génn mobiliser mobilisation bi parce que soxla nañ ko promoteur bi soxla na ko. waaw waaw côté boobu moom xam nga dama ciy woo ñi may jàppale bu baax a baax a baax ci combat yi xam nga ku ci mel ni. suñ monsieur le maire mu Moulaye Gueye xam nga ak soxnaam madame le maire maire Fandiaye Agnès ak V Ndiaye Pape Gueye suñu international bi ñu ngi leen woo ci combat bu baax Aziz Mbeng V Saw xam nga ñu ngi woo ci combat bu baax ak waa RED waaw association élèves étudiants bi nekk fii ni muy waa RED ñu ngi leen woo ci émission bu baax a baax a baax ñu ngi leen woo ci combat bi parce que ñoom samay combat may jàppale bu baax baax xam nga ak Baye Sele waaw borom gorom gorom moom day jàpp sama combat bu baax combat moom laa ko jagleel ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax xam nga Aziz Mbeng xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen woo suñu président écrit nag Adama Mohamed Mbaye aw sa fay maa lay woo si bu ba si kaar yi xam nga di ñaana soxna si Ndeye Ndiaye xam nga yàlla fëgg bopp bi quoi ak suñu grand bi nga xam ne moom muy fekk fii muy Zador waa Zador moom jàmbaar la quoi Zador dañuy jàppale suñ combat waaw bu faas benn waa sama combat da ciy sonn da jàpp bu baax baax a baax a baax waaw ñu ngi koy wowaat bu baax si xam nga si côté ticket yeeg kaar am na lu ñu jot a bu baax ñu koy sant bu baax a baax te na lu ñu promettre waaw moom jàmbaar la quoi waaw ñu ngi koy ñaanal restaurant bii di Seetaako li mu ci bëgg yëpp suñu borom defal ko ko quoi parce que jàmbaar la waaw waa Déni Biram Ndaw nag bépp quartier bu fa nekk xam nga waa ASC Lac Rett bi ñu ngi koy woo bu baax a baax ñu ngi leen woo ci combat bi waa Jameek waa Jameek du leen fàtte benn yoon parce que samay garant yu sonn ci man la ku ci mel ne ay Nokia ay Gaan ay Modi xam nga ñoom ñëpp bàyyi ma kenn ay wëcc bàyyi ñu kenn ñu ngi leen woo ak waa Ngéwal waa Asalem xam nga waa lamb gi ñokket rëbës laso bi gëm-zëm ñoom ñëpp ñu ngi leen woo si combat yi baax a baax a baax a baax xam nga sama waa staff nag maa ngi woo ak sama waa fans club yëpp di woo waa Caaroy bu baax a baax baax a baax xam nga sama grand yi yëpp nag yi may jàppale ci combat yi mafia ñoom baylaat bi ñoom ñëpp ñu ngi leen woo waaw di nuyu dab daan mi bu baax di ko woo ci combat bi tamit ak ñoom duudu xam nga ay sóora mi ñu àndal Lamine yow di la nuyu bu baax baax parce xam nga rek jàmbaar nga quoi waaw ñu ngi gis liggéey rafet na waaw ñu ngi ñaan site bi yàlla dem ba raw canal plus yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def yee noonu la demee kon kontaan nañ la. Bango laa nekk Bango écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ak moom kooku daa ñeme xeex ak man. ñeme ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kereet ko xeexloo man pour mu leer. barki Serigne Touba Mbacke booy kereet ko xeexloo ak man. Ali Mbaye mun na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Aliou Mbaye dogoog la ne ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër turam bi turam doom ñëw ak ñeneen ñi de incha <laughs> waaye xaali mbay la maa dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si wala daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. Ah, man day mbër <laughs>